mbokk yi lii lépp lan moo ko waral lii lépp ci ay diis yu daal ci Sénégal lan boo ko waral bi ko waral mooy li tubaab di wax cupidité ak boulimie du pouvoir mooy xiif bi nga xam ne Macky Sall ak ñi mu àndal xiif nañ ko nguur ak yaakaar ni ñoom dañu waral a mun a yor nguur gi toog fi ba faw lii lépp looloo ko andi moo ne de ay at ci gannaaw loolu lañu ñu xeexoon ba ay bakkan rot fii li andi lii mooy nguur gi ñu teg ci loxo Macky Sall ne ko jox nañ la suñuy moyen jox nañ la budget jox la administration jox la justice jox la armée jox la lépp loo soxla la ñu bëgg mooy nga defar réew mi la bëgg mooy ndaw ñi am liggéey la ñu bëgg mooy nit ñi faju la bëgg mooy tale yu baax Macky Sall wëlbati loolu lépp jël ko mu doon doole bu muy jël di ko teg ci kaw citoyen yi muy kuy politique muy kuy mouvement citoyen muy kuy société civile ku nekk d'accord ak Macky Sall rek teg na doole googu sa kaw loolu moo ñu andi ci lii mu ànd ci ak ay nitam yoo xam ne duñ ko wax dëgg bal sax boo moytul ñoo ko yées moom ci boppam ndax lii am lépp nag acteurs yi bëri na de waaye li ci ëpp acteurs yu ndaw la boo ko doon seet ñeenti acteur la muy Macky Sall Antoine Diome Malick sal ak Bassirou Guèye ñeneen ñëpp ay suq lañ yoo xam dañ leen di def loo ay ancien directeur du domaine ak ay euh, avocat ak ñooñu ñëpp dañ ay pion lañ waaye ñeent ñii musiba Sénégal yépp ci jamono yi ñu toll tembe ci ñooñu la est-ce que jaadu na 16 millions de Sénégalais ñeenti nit rek lëmbele est-ce que ko mën a continuer nangu ci dëkk bi loo wax nag ñu ne la ñun ñoo yor buur force restera à la loi te loi boobu duñ ko tudd lu dul bu dee opposant loi boobu dañ koy wëlbati pour mën a jot jot jot ci opposant waaye ñoom saa su ñu waree loi bi war a dal seen kaw mu ne mukk du fi am ñaata nit ñoo fi def njombe yoo xam ne kenn mënu koo tudd te ñi ngi romb Sénégalais yi di leen narge loolu rek lañu mënut a nangooti loolu tax nit ñi jóg ni lii dootuñu ko nangu dootu fi am ñu war nag di waxtaan dëgg ndax Macky saal li ko bewloo bokk na ci ñun sénégalais yi ñenn ci ñun sénégalais yi balaa may dee nit ñi toog ñi naan analyse politique lañu ñii naan lii lañu ñu naan c'est un génie politique génie politique parce que yow mën ngaa dal ci sa adversaire mën ngaa complot sa adversaire mën ngaa jënd sa adversaire wëlbati ko ba suy waxati doo xam lu muy wax lu mu doon loolu mooy génie politique ñun on a besoin de génie d'État koo xam ne bu ñu la jénkee réew nga defar réew mi waaye soxla ñu ay génie politique génie politique mooy lañ la dénk nga liggéey ko ba Sénégal yi soo ne woon sama deuxième mandat jeex na maa ngi dem ñu ne la bàyyiwuñ la parce que résultat nga def waaye jël doole bi ñu la jox rek dal ci kaw bi neuf ans de Macky Sall li fi am musul am ci Sénégal ñaata adversaire la tëj ñaata adversaire la faagagal loolu ba kañ loolu nag lañu mën a tur nangooti te te nag lii mu def dañ koy tuddee ci tubaab haute trahison haute trahison mooy wor bi gën a rëy ci wor yi mun a am ndax moom biñ ko falee dafa dafa teg loxoom ci suñu constitution daal di waat ne waat naa ni dinaa respecter constitution bi lii mu def du respecter constitution bi dinaa nekk au service des sénégalais li mu def du nekk au service des sénégalais ku dem ba yow dong nga wéet ak sa peuple nga wéet yow fundum fi nga nekk ak sa juróomi nit sa peuple nekk en face de toi nga am sañ-sañu yónni sa ministre bu immature mu ne peuple boobu yëpp ay terroriste lañu peuple boobu yëpp dafa am ay intérêt yu ne seen gannaaw bi leen financé ndaw ñii dañoo mës a gis ku leen financé taxaw saaga sa peuple ñëpp ñëpp wet yow dong sa pale day soo demee ville soo ko fekkee moom dong ak pale cundum peuple bi yëpp nekk fii suñu woon militaire ak armée bu nekk suñu diggante tey kii kenn kenn du kenn kenn ay ay ay bagages am dañ koy foofu loolu foog ngeen mooy haute trahison parce que liñ ko joxoon ci ay moyens du woon pour muy comploter contre des adversaires politiques dama wax tey ñu ne ma contrôle judiciaire waratoo wax ci dossier bi ma ne juge bi bu ngeen ci waxee ma wax ci ndax saa su ne dossier amoon na fi dossier Khalifa Sall gis nañ ko dossier Karim wax nañ su ngeen dégloo nit à à huit heures à neuf a koy jox seen seen benn journaliste mu ne les secrets de l'audition su ngeen ci waxee dinaa ci wax ndax man kenn du ma tënk waaye damay gaaral sénégalais yi wallaahi dama ko waat wallaahi lañ ma tuumal bu amoon du ma nangu benn sénégalais am xoosu xoosu waxuma laa bakkan bi juróom parce que bu boobaa du ma yem ci lañ ma def rek kese mais damay doon criminel kon ñii fi faatu tey yëpp man maa leen faat loolu duma ko nangu sama kanam borom responsabilité Macky Sall la ak comploteur ba tax nag ñu ne ab président de la république am na loo xam ne du sa sañ-sañ amul président de la république boo xam ne war naa féewale peuple di boole nit ñi ñu jàmmarloo di xuloo walla di xeex amul président de la boo xam ne war naa gouverner ci ci li tubaab bi wax haine ci soxor ci bañ nit parce que àndul ak yow rek nee na d'accord ma yow nga ne kii tey ma faagaagal ko loolu du président de la République te ñun ñëpp nag ñu war ko cee bañ a jàppale parce que discours de la haine léegi lay doog a am Sénégal tey da laay doog a Sénégal ñu tudd ethnie nit waasoo nit ci politique wala ñu tudd ngëm-ngëmam ci politique loolu ñun ñëpp kenn war koo d'accord te di ci woo ñëpp nag ba ci mboolem média yi ñun ñëpp dañu góorgóorlu opposition de programme de projet d'idée d'accord mais def ay programme semaine bu ne ay nit ñëw taxaw di saaga nit di xas nit di ŋàññ nit di wax ci ñoom moom loo xam ne du dëkk suba du dugg ngoon mu yor njaboot yor ay nit yu ko bëgg yor ay militant loolu mooy taaw réew nañu delloosi suñu xel mbir mi sottante xalaat la opposition d'idée de programme la waaye du opposition personnelle kenn ku nekk deram rek la am waaye xëy suba ba ngoon jot di wax ci nit di wax ci nit di wax ci nit tam ko dëmm wax ci mbokkam wax ci waajuram loolu amu fi woon ci Senghor amu fi woon ci Abdou Diouf amu fi woon ci Abdoulaye Wade mi ngi fii doog a am te dafa war a dàkk Macky Sall moomul réew mi